Sénéinfo International. Sénéinfo International Sénéinfo.net bonjour et bienvenue daleen ak jàmm si euh, li gën a fës si xibaar yi tey euh, mardi 12 euh, décembre 2023. au Sud Quotidien moom nee révélation sur un présumé scandale de contrat minier euh, maître Moussa Diop la sûreté urbaine donc loolu la journal bi ñëw def tey dans. Euh, ça une nee na l'ancien ministre Aly Ngouille porte plainte le procureur de la République s'autosaisit donc euh, loolu la Sud Quotidien def te dans ça une mu ñëwaat rek euh, si Sud Quotidien ba tey nee na ngay réintégration du candidat Ousmane Sonko sur les listes électorales la balle est dans le cas dans camp du tribunal de Dakar donc tey la tribunal di décider te la ñuy xam ndax Ousmane Sonko. dañ koy réintégrer dans les listes électorales ou pas donc procès baa ngay woy fële si tribunal de Dakar tey la am verdict bi. waaw ñu ne CAF footballeur africain de l'année aussi même succès à Sadio Mané donc loolu la journal bi xëy xamle wante journal bi aussi nee na Lamine Camara footballeur jeune footballeur africain Lamine Camara c'est un Sénégalais. suuf su aar boobu bu rek euh, euh, benn enquête boobu mu def nee na euh, enquête autour de l' état nutritionnel des enfants euh, au Sénégal doon nee na les conclusions donc dañoo def benn enquête boo xamante ne bu day saytu euh, xale yi seen dundin ak seen lekk si téeméeri xale yoo jël fukk ak juróom-ñett yi ñoom nee na dañu présenté en retard de croissance loolu la journal bi xamle conclusion yooyu. donc mu ne encore 4 euh, pour cent des enfants sont en retard de croissance sévère qui se traduit par une taille petite donc xale bu nekk boo si téeméeru si téeméeru xale yoo jël ñeent yi ñu ngi euh, nekk benn am benn handicap boo xamante ne dafay tax ñoom vraiment cette croissance dafa wàññeeku bu baax mënuñu màgg daal donc loolu la journal bi xëy le ñu des rek euh, si journal bi mu ne Moussa Diop éternue dans l'affaire du contrat minier exploitation de diamant mu ne la république euh, sans rut loolu la journal bi xam def na si euh, gëstu bu yaatu yaatu boobu suuf saa si euh, li nga xamante ne moom la maître Moussa Diop wax. donc journal Le Soleil ah moom dafa ñëw si consécration bi nga xamante ne defal nañ ko Lamine Camara ah. donc meilleur joueur africain donc jeune africain may Lamine la consécration loolu la journal bi tey xamle. réhabilité xam ne yi ah, bu ñu waatee ku ne maître Moussa Diop dans l'œil du cyclone euh, journal bi euh, l'Obs euh, journal Soleil loolu la xam ne. enquête rek ah dafay ñëwaat rek si gëstu boo xamante ne def na ko ne na maître Moussa Diop dans le Baudra nee na affaire des diamants donc li nga xam ne déclaration bi nga xam ne ki nga xam ne moom mooy candidat à la présidentielle Moussa def démb ni ki démb. donc euh, journal bi dafa ñëw ah, def si gëstu bu yaatoo yaatu dina mettre Moussa Diop euh, dans le sale drap ñu ñëw rek si euh, l'observateur moom dafa jëf benn enquête bu yaatu benn gëstu bu yaatu interview ak ki nga xam moom mooy ministre des finances mooy Moustapha Ba mu ne le ministre des finances la seule vérité sur la dette je voudrais rassurer les entreprises de BTP et les établissements supérieurs privés et en avec l'État donc loolu la journal bi ñëw le mu ñëwaat encore rek euh, si euh, accusation yi nga xamante ne moom euh, Moussa maître Moussa Diop def na ko nee na maître Moussa Diop l'accusation de maître Moussa Diop vrai ou faux l'avocat placé a garde à vue à la sûreté urbaine maintenant les répliques des divans cause et éclairage des techniciens loolu la journal l'Observateur ñoo xamle tey dans ça le ah, koy def dina les pépites explosives de Moussa Diop Aly Ngouille Ndiaye porte plainte nee na Aly Ngouille Ndiaye ministre ma porte la plainte le procureur s'autosaisit bi maanaam LPDC 2000 demande le leader de ànd jot ànd AG Diota convoqué hier à la sûreté urbaine d'ailleurs sax il a été en garde à vue euh, journal bi ba tey rek mu ne euh, tous contre la CNTS tey la ñuy def élection de représentativité syndicale Euh, journal bi dans sa une nee na élection de représentative Sénégal tous contre la euh, CNTS li la ngeen indiloon tey si lu gën fees euh, si xibaar yi tey mardi 12 décembre 2023 ñu leen di jaajëfal bu baax si teewlu bi te di lay tàllal yenn jàmm. Sene Info International.